nga koo woote ku la xam-xam ne luy dund bu bokk rek ci lii nga dajale fii sa jikkoo tax nga mën ko jàngkati xasida yaa ngi fi ñi nga bokkal seen chong boo ngi waa nga Cheikh Moustapha njaboot bi ñëpp a ngi fi tey wuy si la lu ko waral loo dox la sa diggante ku ne kenn ku ne fekk nga ko ci yitteem kenn ku ne fekk nga ko ci bérébam kenn ku ne sagal nga ko ci jëmmam sagal ko ci kilifa loolu nii nga doxee nag bokk na ci lii tax bennoo mën a am nëbbutu laqatuwoo kenn dawoo kenn tabe yomb na waaye tab bu yomb a gis moo yombul am na ko ku ko jox ordonnance bu jëlal la ko waaye ñaata buntu ngay ubbi la fa ne ci garde corps ak la fa ne ci nit sëñ bi daay tëju mënoo yegg ci moom boo yor la ordonnance kenn du ko faj waaye sa pénc mi fi tay bii yow nga waxtaane ko mooy luy tax nu bennoonoon murid yi ca nga nekk jàngkati xasida yëpp yaa ngi leen teg ci yoon Cheikh Abdou Samad ku wéet ak moom da ngay yow doo nga la bëgg te fekk ñëpp la bëgg moom nekk ci sëñ bi rek doon waaye boo nekkee ci leneen mu kon jikko yii lañ ko koy seeral nuyu moo tax saa yoonu wooyee gis ñu sab jataay ku ne fay na jataay si am samat ku ne boroom xam-xam yaa ngi nii tey te am si ñoo xam ne ku leen bëggoon a woo wujj leen jafe waaye tey koo woo mu wuyu la ndax yow ku la waxuma ku la woo waaye ku la dégg ci dara rek wuyu si la sëñ lu mën ci tiyaaba bu dee ma ngay umra ma ngi koy defal ay bokk bu dee aw yiw ma ngi koy defal ay bokk mbokk mu faatu yaa ngi dégg ma ngay jàngalu ay basmala ma ngay def lu fidaaw ma ngay def lu ne ma ngay def lu kon yow li nga yéene nit ñëpp bu nit ñëpp defoon li ñuy daw du am te yow joxoñoo kenn Serigne Touba dafa joxe magi Serigne Touba yi seen njaboot gi kenn ku ne yaa ngi koy nemmiku di taxaw ñooñ daara ñi doon seeni docteur doon ci man saa yu ma waxee ba noppi danaa ko jeexale ci yow wax naa ko suñu alpha mais nee ñàkk fay xam nit ci baax na ko tegg di wax leen man daa ko defut li ma seet di sama won daa ko yokk ma toog mm-hmm. kenn laa ci nëbbul loola kenn ku ne am nga sa waay bi kenn ku ne am nga sa waay kenn ku ne am nga sa waay mooy Cheikh Abdou Samad waayu ñëpp a sëñ Tuubaa la dajalee fii bii jataay kenn déggu fi lan lu du sëñ Tuubaa kon Mbàkke yàlla na jataay bi yàgg yàlla na nga wér li ngay ràbb ak tabax yàlla na la ko sa maam fay dara yàquwul ci yow yàqu ñaawalu soboote woo sa alal sa jëmm sa xam-xam sa temps lépp jox nga ko taalibe Serigne Touba mm-hmm. waaye daam kenn du wàcc mu des barke Xaadimu Rasuul wasalaamaaleykum wa rahmatulah